ah Maté Mbaam lan la yow. boo bëggee tekki ni ngay tekke bëgg a cekki tekki lan la wax Abdou Jubaloo dana tekki waxu cekki ok. et ci yow yow wan fànn nga bëgg a tekke nooy tekke ci lan. ma mu jën ki li mbaam mu bees ni waaw désolé mais fi nga toll fi nga yem de doo màgg de sa màgg arrangé wuñ sax ni nga toll la baax na li nga ñu yan fan yi doy na sëkk tata bi bis ku la solal yow ah et boo màggee ay yow mii de mbaar dangaa bëgg far jàkkale abu jubaloo benn yoon ah non non abu jubaloo sa sa sa yi bind ko yónnee ma ko xam naa doo mën na ñëw mais bind ko yónnee ma ko rek incha allah fu mu mën a nekk naa ko fekk jox ko cimbali dimbali dimbali nga naan cimbali dimbali waaw oh les larmes de yaay bébis oh. man gis naa kuy saga yaayam. man mii de gis naa ko respecté wul doomi goxam koo xam ne lu ne yàlla lay teg waa réewam yàlla baax na léegi. ah li nga sol nii mën ngaa xëcc ma xool ba xam day taw yi comme déet. ma cellu gisaat bana fii laa mënoon yem incha allah. kuy toroxal nga bëgg a wax kuy coroxaan. foofu nga yem ci toll mooy fi nga enregistré studio bi nga nekk kooku moom eh ngewal waay artiste bu bees ay réewam day yem ubbi sa gémmiñ gu jën ah amut xonxon li ma la wax dëgg la ci lan lañ lay xaar yow looy def bañ lay xaar bi bis fooy toj yow fan ah, li ngay togg boo ko yàq nga yàq ko ci àll ba ko ci xaj laa wax foo koy yàq yow waa kii am na courage nag ki ñi ko entouré laa bëgg xam ba ñuus leen ñoom ñëpp yow. ma koy yëngal. ah manière sax waaru na de. xam nga dañ koy xar ñaar mais man ñett laa koy xar ñett. loo ba xar fi ñett yow sa jëmm ji la ñuy tàggale lu nañu def ko parti xool fi ñu ko jaarale sa ŋaam yi jaar ne sa bakkan bi jaar ne sa tuñ bi jaar ne sa loos bi jaar ne réewoo sax. xale bu ndaw. xale wala mag mu dem ba ñëwaat kay mu jël. bu bis nag mañeeru nga war a bàyyi parce que boo mañeeroo sa kanam gi animal bu ma ci dinaa ko gis bu ma la méngooloo la nga méngook moom mañeeru bi ngay ba ah mañeeru bi ngay bàyyi boo mañeeroo rek animal bu ma xool ci sa kanam gi dañuy niroo mañeeru bi ngay bàyyi dégg bu topp mooy borom studio bi bi bis di enregistré ñu naan ko Damel Record ma nga foofee ca yëmbal ah télé bu xonq bi boos moo ko jiite bi boos ak bibis lii complicité la bi boos bibis bi boos bi bis waaw kon association ànd dem tëj studio ba wala ñu plainte borom studio bi ndax mënul ñàkk procédure fa mu mbokk ci fa mu tëdd kaso moom it ndax lépp moom la complice la bi boos bi bis yaa quelque chose loolu am na lu ma jox studio Damel mhm. Damel record barki nga xam ne nag da ngeen di jouer utiliser leen suma code promo Ndiaye 21 tout à majuscule lien bi mi ngi sama bio TikTok mais tamit bu nekkee Instagram ngay connecté mën nga koo am sama bio Instagram da ngay euh, télécharger sa application bi nga bës euh, bu nekkee da ngay sa VPN da ngay dindi VPN bi nga désactiver VPN ba mu set wécc nga télécharger application bi def sa dépôt ma may la bonus cent cinquante six mille francs ayca kon léegi yombalal naa leen ko lien bi mi ngi Instagram waaye mën ngeen koo fekk sama TikTok ayca.